naa leen potentiel bi Cambérène am ndax dafa jàkkaarloog océan Atlantique bi ma ne sax suma yeboo dama naan ay dëkkandoo la ndax géej gi rek moo ñu séparé l'océan Atlantique entre Amérique ak Afrique particulièrement Dakar particulièrement Cambérène bi nekk ci façade maritime donc loolu jàngat nañ ci ni relation bi war na mën a jéggi océan Atlantique bi pour que ñu mën a développer lu bare bare bare loolu waxtaane nañ ci wàllu économie locale maanaam naka la ñuy doolelee économie bi nga xam ne jigéen ñi ci Cambérène am nañ ko mais it euh, lépp lu jëm ci wàllu dooleel jeunes yi ci seen emploi loolu waxtaane nañ ko ci ay incubateur donc gëm naa ni incha allah expertise ñoom bi ñu am possibilité yi ñu am den ñu dooleel mais aussi ñun ñu dolliwaat li nga xam ni am nañu ko mu mu mën leen jëriñ wax nañ ci pétrole ak gaz muy perspective yu intéressante li nga xam ni Sénégal mi ngi koy dëgmal loolu aussi dina jëmmal lu bari bari si suñu relation yi nga xam ni incha allah dinañ ko togg fii ak at yu néew